mais gis nga euh, yow numéro bi enregistré ko boobu am <laughs> li ñuy envoyé xaalis <laughs> bàyyi bàyyi ku aaye sa moome gannaaw ba yow da nga yor xaalis moo ñëwee sa kër nga am ay 10 ans ay 10 ans ay en fait xam nga lu ma nga dem tablo xaar yàlla nga ni. waaw tablo xaar yàlla da ngay dem tablo kay tout ça merde bàyyi tey ma <laughs> appo ay waay finalu naa waay waaw bu yeboo naa doon lesbienne daa doon lees benn bàyyi waaw waaw ndox bàyyi daal tey doolay poos laa yor pour lan war nañ li laay def ma ko nga ma yalwaan <laughs> waaw bu yeboo doo xool non jaru ko xool jaru finalu ndaa finalu ndaa si mooy wërsëg ah amee ko ñaar lañ la jox rek. nee na ginnaaw la. waaw yow waaw waaw baax na waaw baax na waay baax na. damay xool jar jaru ngay xool defar rek. defar meew lan. mooy yow tey tey tere jàq ngay ndafoo. <laughs> yaaye kuy sama ndey. eh mais baal wi ma. moom moom yow man sa jikko neexuma dara. waaw bay lan la. li ma lan la moom laaj moom laaj ko la. Ah, laa def. xamoo loo def yow. lu ma def xamoo bi yow. moom yow Maodo waa ji moo tax ngay mer. waaw mais yow ñun ñun dañoo sonn. waaw ñun yoruñu ñun sooy nelaw doyul yow kii di def te yàlla doo nangu te yàlla hmm. buy def te yàlla tax jox ñi ko yellool. Ah, ay santal ah, yàlla yelloo moom. santal yàlla ku yorul lu mu dogoon yorul. yaa ngi lekk yaa ngi laa lekkee. da laa lekkee. yéen man man man man yéen boo ay maga ma créé lii parce que bon gii non Abdou Fall ko jox dama kaa gën. ko jox Abdou Fall. kon kon Aïda li wax looloo nga mer ñëw toog foofu. looloo ma naqari parce que alal jigéen dem ci keneen te mu su ñëwoon fii mën nañ cee sos du sos yow démb eh, eh, lañ dogo eh, démb lañ dogo lekkuñu ginaar démb loo bëgg léegi. ginaar bu yàgg ko ginaar bu yàgg santal yàlla sant yàlla am na yoo xam ne kenn lekkatu ko loolu mooy daw da koy yóbbu da ko yelool yeloo woo ko yeloo naa ko waaw sarax da nga ko yelool yeloo naa ko bëggee tam doo doy ni da ngay doylu tey yow bàyyi yow lan moo tax doo sant yàlla yow bàyyi bàyyi yow fu ñu la fekk ñàkk rek ngay woote ci yow dama yuru ayoro dama yoru di da ngay sant yàlla di nga yor nit a ngi woon du séew jot ci di ngay ñàkke de neex lan la séew di jot nit len dara sa bopp yaa bëgg bii ah ko bañ bii ni ngay ñàkke de neex na ni ngay ñàkke neex na yow tax mu mer ne ber jataayam ne dem toog ne tàng gi de boo ci bëggee boole bëgg xaalis ba de da ngay sonn koor bu tàng gi boole ko wax ju bëri yaa di nga di xam est-ce que du dox sax kii nga yaakaar dañ ko yox ndox mu naan kii koor wu renam sax moom dara da cee dem sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci waaw fi ma demoon suba mooy fi ma la waxoon waaw fi ma jël naa jot naa xaalis bi biir maa bi ñëw na alhamdulilah léegi récupéré naa ko mais nag dama ko récupéré ci saas laa woo sama yaay xam nga moom du ma nëbbante ak moom yaa ngi dégg léegi bi ma ko woowee dafa ne ma comme yaa ngi sa kër mag te sa mag mooy sa lépp nee na daal naa xaalis naa ko tegaat sa loxo dangaa baax waaye sax sama yaay woon ma ci suba ba expliqué na ma lépp waaye dañuy sant yàlla rek lu jot yomb waaye na xaalis bi moom ñu mën a koy delloowaat sa xaalis la yaa ko moom yaa ko liggéey yow daal yow yaay xool lu la ci doy ak loo bëgg ma def ko ci ma defal ko ci sa xaalis la ah, léegi man mu sama nekk denc naa xaalis bi foofu mm-hmm. léegi yow après ñu xool li ñu ciy def mm-hmm. yaa ngi dégg xam naa bu ñu dogoo pare rek après ñu xool waaw nga xalaat ci rek bu baax waaw incha allah bu baax la ok waaw am benn ki toogoon fii ñu ah. jé yaakaar naa est-ce ndox sax <laughs> waaye bàyyi la bëgg bi muy wér di bëgg naan ay social xaalis bi ñu waxta dugaluñ ko moo tax mu dem kan moom ah, xëy na moo xam xaalis bi xaalis lay dégg noppi xaar bu dee xaar rek day yaakaar lii sa ci toog <laughs> kii. kii lim nekk tayu ko. lii daal mooy sa anti stress.